yéen a ko doon xaar yegg si na Touba quincaillerie générale TQG ñu gën ko xam ci jaayu matérielu quincaillerie de qualité mooy ubbi showroom bu mag fi ci Mbour ci sali diggante rond-point Malicounda sortie autoroute à péage bi ak croisement sali ñu ngi leen di jox dig daje samedi 19 février na ko ñëpp yëg te teewee xew mi ah xew mi nag xew mu rëy lay doon lii lu rëy la lu doomu réew mi def fii ci Mbour Touba quincaillerie secrétaire général nekk fii ci Mbour yéen la fi nekkal dinañ leen may trois jour de formation ci wàllu peinture samedi dimanche ak lundi andi si ak Colorado marque bi gën si peinture invité nañu waa Mbour waa sali waa Malicounda ba Joal Touba Quincaillerie Générale notre force maanaam suñu doole mooy la qualité